di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla da leen a jël ci coobareem yàlla yërëm leen te jéggal leen tey nag euh, ma ñëw sama kër sama kër laay wax ndax euh, ku ne xam na fii ma ñëw di place su Mame Ndiaye Savon wax dëgg yàlla su ma neexee ni du ma fi détail grossiste laa fi xaw ma fi sens interdit waxtu ma neex laa fi ñëw heure ma neex laa fi ñëw léegi sax su ma ñëw du ma tàggoo mu doon cër boo xam ne jox na ma ko euh, waaye nag ma koy nuyoo tamit boroom këram parce que tamit moom moo tax tey. Euh, euh, maam am am am am am fitu yi moo ko gunge. moo ko jàppale. donc tey nag fi lañ ñëw nii ah, seet si nag ki nga xam ni fan yii daa xew <laughs> Zal Mbaye borom salaan si <laughs> Zal Mbaye borom njaay mi ci fulla bi <laughs> Zal Mbaye lañ fas yéene seexal waxtaan Zal noo lay bàyyi nga nuyoo ñu waaw bi ma jullee ginnaaw bi ma jullee ci yàlla. bu ma sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi may seetaan yëpp. di nuyu àdduna di la nuyu yow tamit sama xarit bi nga xam ne. ndeysaan kenn du yow ci man barkalla. ndeysaan di nuyu ñëpp nag maa ngi nuyoo ñëpp. Mhm. Zal Zal Ndiaye mi Zal Ndiaye mi fulla ji Zal Ndiaye mi ambiance bi Ndiaye mi naka nga koy dee waa njaay mi moom xam nga damay dégg mag yi naan tubarkalla Dakar sax boo koy jaay faaw nga am fulla ndax nag réew mi looy def te boole woo ci fulla defe naa du dem. Mhm. ndax sénégalais dafa bari ñu yabaate. te man bëgguma yabaate <laughs> waaw. waaw xam nga bu may jaay di jaay caleçon nga gis parfois nit woo di la kukkale di la def ay yëf boole ci boole la rek caleçon nit looy liggéey lu ne yaa koy valoriser. Mm. boo ko valoriser wu rek du dem. Mm-hmm. fulla gi faaw mu am ndax sénégalais dafa bari ñu yabaatu ñoo xam ne lu yàlla xam doy na ak ñi ma ko sañ a wax. Mhm. moo tax faaw ma boole ci fulla ak fayda. donc Ndiaye moomu ñi bari dañu yaakaar ne yow da ngay kaf alors que da ngay liggéey di ci tedd. bien sûr damay liggéey ndax bu may bu may bu may jaay sama euh, caleçon damay taal sama direct damay taal connexion jënd. ñi may seetaan mayu ma leen connexion bi damay jënd sama connexion taal sama direct di direct. kon damay liggéey caleçon yi mayuñu ma ko dama ko dem jënd di ko jaayaat kon damay liggéey. Hmm. bugguma kenn ku ma ci dépassé maa nga ma ci wax loo xam naka su dul noonu la. <laughs> mais hmm. ñàkk kersa gi. ci ci ci njaay mi des fois nit wala téléphone nga wax moom ni ko ni ba dem ba xale yi di ko salaan si. non du question ñàkk kersa de li la wax léegi la rek yabaate gi la rek ndax allo Zal au lieu que yow xam nga ne Zale Mbaye caleçon lay jaay nga woo ko di ko di ko këyitloo naan ko jaay ma ay leneen jaay ma leneen xam nga loolu tamit neexul ci xool te ku teg ci ci ku teg marchandise am war koo jaay. imagine ku teg ay caleçon mu leer na ne caleçon la teg war koo jaay nga di ko woo di ko kókkal di ko laaj leneen. Uh-huh. a ah. mais mais mais ba règlement nga kon nga am ak waa Louga. ah <laughs> waa Louga. waa Louga moom ndeysaan samay xarit la dañoo mujj a nekk samay xarit ñoom ndeysaan dañoo mujj sax nekk samay xarit billaay. Mm-hmm. dëgg fa yàlla ñu mm-hmm. baax lañ ñoom. Mm-hmm. maa ngi leen ñoom ñëpp waa Louga yi. Salaan si mu mel ni Njaay mi. yaa ngi ciy yaa yaa ngi ciy yaa ngi jaay mais tamit yaa ngi ciy joxe bon exemple parce que gis nga léegi xale yi. kuy def fulla ak fayda rek day dem jël sa day dem jël daal may Salaan su ko. waaw xam nga li ma la wax léegi rek ful la lum la may du la ko xañ réew mi boo fi nekkee da ngay am sa ful la am sa fayda yaa ngi dégg y a pas de sot jaay caleçon bonul ndax maa ngi ciy am li ma ciy am bu ma ci jaayut bu ma jaayoon caleçon yi aw ma ci dara bu ma ko jaayee tey suba du ma ko jaay mm-hmm. moo tax ñu war a xam ne réew mi loo fiy jaay lu ne boo ci boolee sa fulla ak sa fayda day dem fulla rek mooy àdduna mooy lépp mm-hmm. fulla avant tout mm-hmm. ni da ngay am fulla d' accord te it wane nga ni nit euh, kenn du ko xeebal ci lu mu nekk. kenn du ko xeebal ci lu mu ne ndax Zal Mbaye boo ko xeebalee ci caleçon te ci caleçon bi lay tedd man damay tedd ci sama caleçon yi maa ngi ciy faj samay maa ngi ciy am samay soxla di ko faj maa ngi ciy am leneen di ci fay sama location di ci def sama yeneen di ci dimbali ñi ci xaj. kon caleçon yi bu ma ko kenn xeebal nañ ma ko bàyyee rek. ku mën a jënd jënd ku mënta jënd man forcé wu ma kenn ku ta jënd mën nga bàyyi. d' accord mm-hmm. Zal sa digganteeg Mame Ndiaye mm-hmm. waaw ah, sama diggante ak maam moom defe naa loolu war na àddina. ndax maam moom day kenn ci man. koo xam ne li ma naan moo ma jooy sama yaay ji nga xam ne mu ngi ci barsàq. ndeysaan ajatu maam moo ma teree jooy sama yaay ji. yógu ci yaay bu dee bi dara ndax maam Ndiaye Savon. ndax nag moo ma jàppale moo ma dimbale moo ma dooleel ndax nag ku soxor du gërëm. ku ragal dokki du gërëm. ndax xeer ba ca sàkket da cay daru moo jàppale. ndax nag bu la nit ñi xamee. bu ma nit ñi xamee man Zale Mbaye a cause de Mame Ndiaye Savon te log bu lekkee olom na ko gërëmee coy mhm. te dama naan tubarkaale kii tax ngay tax te musul taxaw ne maa tax ngay tax boo goree rek ne ko yaa tax may tax mhm. bu ma xaat àdduna xamee ba tey jii ñu bari bëgg Zale mbay à cause de Mame Ndiaye Savon mhm. maam na danoo ànd boobu picc gi amul boobu beusi amul boobu tuddul maam Ndiaye boobu tuddul Mame Ndiaye Savon la ñu àndoon man ak moom. waaye mhm. fàttewul démb ndax fàttewul ay nit tamit. bu ko neexoon doxu doxunu jamono jiital ko mu fàtte ay nitu démbam. Mhm. waaye man ak maam lënd dek maat la ba soxul ci diggante bi. Mhm. des fois est-ce que yomb. live yi nga gis nii xam nga. surtout surtout surtout anam bi nga ñu jaayee lu ci ci ay live lay nekk. des fois yenn commentaires yi yenn critiques yi du ci ñàkk loo xam ne des fois euh, da da da da da lay dal naka nga ko dundee. waaw mais xam nga man parfois. nit commentaire ma loo xam ne lu négatif la ma gis ko dama koy gis damay gis commentaire yi dama koy gis dama koy dégg mais man ragalu ma lool xamata ragalu ma lool man damaa xam li ma bëgg xam fi ma bëgg a yegg nit boo xamee li nga bëgg xam fi nga bëgg a yegg commentaire du la déranger ndax man Zale Mbaye fi ma yegg si ba fi ma jaar ba yegg si fii ah du ma nangu benn xale boo xam ne commentaire toog ci naaw clavier di commentaire naka su lu noonu pour décourager ma du ko nangu mm-hmm. ah defe naa du xale mooy tax ma ma découragé wala ma bàyyi. Mhm. ragaluma lu waaye commentaire garaaw ragaluma lool. Mhm. Mhm. d' accord des fois euh, njaay mi fecc mi ambiance bi. daal ambiance bi ambiance bi lan la quoi. non ambiance bi moom mënut a ñàkk ndax ñun ay géwél lañu. Zal Mbaye géwél la. Zal Mbaye bu mu nekkee géwél ba pare. yaa ngi dégg Zal Mbaye géwél la ambiance bi mënut a ñàkk ndax nag tubarkaal lu waay doon mu dëgër waay lu waay mu wat man damay doomu géwél bu ma ambiance war naa mën a ne bu ma ambiance wul sax dañ may laaj tax ambiance wul mhm. ndax nag sama deret la ne ambiance sama deret la ne mhm. ndax dama koo judduwaale mhm. foruma ko du loo xam ne tubaarkaal dama koo sàcc dama koo doon ci samay maam ndax jéeri ngoonee sama maam maa law be samba kuli a ga séegi ndaat ma faali ku ma naa ma tëx bàyyi sama maam balaa dégg fukk balak ñaani tuy al xari ngoone ak déggeen xari ngoone gi saala mbaay njukki gi laa dëkk alaa baa o coono du fa judd mhm. damay doomu géwél nag te su ma nekkoon géer sax damay géere te mbaa xam nga ne bu ma nekkutoon géwél rab laay doon rab man. mbaa doo doon natasa. <laughs> mais bu ma nekkutoon géwél rab laay doon <laughs> moo tax damaa fier ci géwél gi ma yow maa bu ñu nekkee natasa yow booy doon yow. mën naa doon beneen rab rek <laughs> waaye à tout moment mën naa doon rab. Ah, mhm. d'accord euh, euh, tey euh, nga doon def benn live. Mhm. ñu gis sa frère Babacar. Mhm. ñëw def ay témoignages sa digganteeg Babacar. waaw Babacar moom sama digganteeg moom li ma dal sama digganteeg maam Ndiaye rek. ndax liñ naan. sénégalais yi ñu bari duñu comprendre bës bi da leen di yóbbu. ci loo xam ne du ñu comprendre Babacar bi ñu xamante boobu day fecc Babacar bi ñu xamante. Mhm. boobu mu ngi ci paamu saa di fecc boobu bongoowul taasuwul ca lañ xamante woon boobu yëpp amul boobu kenn xamu ko ca lañ àndoon man ak moom. ñu ànd ànd bu rafet wul moom it dara. ba mu jàppee ba tey bàyyiwul ñu ànd ànd bu rafet. Mhm. yàgg rek moo nu boole. Mhm. te yàgg bawul dara. d' accord am na solo Zal. Mhm. fan yi passé am ay manifestations yoo xam ne daf ci amoon. Mhm. Euh, ci manifestation yi nag ñun ñaan yàlla na fi gëj. Euh, Zal ndogal dal la ci. Mhm. mën nga ñëw ci fee yi naka la demee. waaw manifestation yi moom damay sant yàlla ndax lu tax may sant yàlla mooy lu waroon a am la te defe naa nit moom sa destin ala kulli aal du jaas. te nit ki la war a li la war a dal dafa jiitu sa juddu. a ah amaana manifestation boobu noonu yàlla moo ne woon Zal dañ ko ciy jàpp ba àdduna gépp xam na jàpp nañ ko. mais du sama gàcce ndax manifesté wu ma sànniwu ma xeer lu waroon a am la lu ñu naan nag tombel mooy waral ay gaaf moo waral ñu jàpp ma mais du question manifester man manifester man du ma genre boobu sax. <laughs> mais Zal Zal lan nan nga def ba dugg ci manifestant yi parce que maa doon déglu sa benn live. Mhm. Zal ñëwaatal ma ci loolu. non manifestation yi moom fii sax la ma fekk Pikine gii <laughs> ndax bi ma fekkee Pikine gi fanaan naa fii ci kër gi kër maam fanaan naa fi ñaari fan. Mhm. ba ca ñetteelu fan ba nag ma ne damay ñibbi sama kër damay ñibbi sama kër la xam lu war a am rek. kenn mhm. mënu ci dara. yaayu maam téye ma ba sonn fanaana ma ne ko ah ma dem dama am envie ñibbi bi ma demee comme lu war a am kenn mënu ci dara daal di dem ma dem naa bay waaj a yegg sama kër sama koñ lañ ma jàppee sa koñ sama koñ ma jàppee li des ma yegg sama kër soreetul ñu jàpp ma nga war a xam ne loolu yàlla moo ne saal may mi alaa kulli yàlla dañ ka jàpp hmm. ci biir kër maire lañ ma fekk benn kër lañ ma fekk ci biir néegu maire bi lanu ma fekk ci ginnaaw armoire bi mais ça loolu yëpp ci ginnaaw armoire non mais xam nga <laughs> damaa bi rek ñëpp daw <laughs> ah bi ñëpp dawee te maa ngi yor bagage ñëpp daw ma daw police yi fekk ñu ci biir kër gi ci biir néegu maire bi lañ ma fekk loqati ma ci biir ginnaaw armoire bi lañ ma fekk oh. yàlla xam na ko billaay ginnaaw armoire bi lañ ma fekk mooy loolu. d' accord mais mais Zal mais Zal Zal Zal policier bi jàpp la sa première sa sa première réaction. Hmm. man loolooy sama problème. non man moom policier bi ma bi ma jàppee damaa jaawaloo bi ma policier bi jàppee damaa jaawal ndax li tax ma jaawaloo mooy ku xamul policier. Hmm. xamul xamul loolu. Hmm. tey ji bu ko loolu dalee day day metti mhm. man saal may xaw ma lu dul kap ak ree ak ambiance mhm. kon bu ma policier tegee loxo yoon teg ma loxo lool daf may daf may tourmenté mhm. loolu la demee nag bi ñu la jàppee loo leen wax ndax xam naa ne yow ku la jàpp bu la dégloo benn yoon déglu nañ ma sax ndax euh, déglu ma mais may nañ ma ma wax ndax bi ñu ma jàppee dama ne la man manifesté wu ma mais xam nga boobu seen yaram tàng na waaw ñu ne ma xamuñu yow la kan ma ne la man ci Maam Ndiaye laay liggéey ñu ne ma kuy Maam Ndiaye xamuñu Maam Ndiaye jaaral nii poñe ma Oh. génnee ma kër gi jiital ma ci mbedd bi loolu daf ma metti oh. yàlla xam na ko metti na ma te damaa ruus ndax dañu ma génnee poñe ma koñ bi yëpp génn mm-hmm. di yuuxoo zaal mbay jàpp nañ zaal oh. mbay jàpp koñ bi yëpp génn sa koñ sama koñ ñëpp génn ñi taxaw si balcon yi jàpp nañ zaal mbay dama am gàcce yàlla xam na ko billaahi mm-hmm. mais comme loolu la yaa dogal moom kenn mënu ci dara mm-hmm. ku sañta bañ sañ a nangu lan nga jàngee ci loolu waaw ah, li ma ci jàngat mooy ne nit moom nit comme nit moom li ma naan tubarkaal ku deewagul dara weesoogu la. Mhm. ndax nag bu ma ne ma ku ne woon Sall mbay bu demee dinañ ko jàpp du ma ko gëm. Mhm. mais comme loolu la yàlla dogal mënu ma ci dara. Mhm. destin la. te lu war am kenn mënu ci dara. man mënu ma ci dara kenn ak kenn mënu ma ci dara may sant sénégalais yi nag. ndax ñoo ma jàppale ñoo ma doon ñaanal da ngay gis sax ku ñëw ba prison ba xamuma ci TikTok bi rek la ma gisee ñëw ba foofu ñaanal ma mag yi di julli di ma ñaanal. aw ma seen fay daal billaay sénégalais aw ma seen fay ñoo ma jàppale billaay. ci prison bi Zal mi doon nekk place maam teg live. Mhm. di fecc rek di ambiance. di ambiance tey Zal nga wéet. tëdd ci prison ba mhm. metti na trop bi ma wéetee foofu noonu dama xam ne euh, nit kese laa ñi fa tëdd gënuma leen ñi fa tëdd gënuma leen ci ndey gënuma leen ci baay gënuma leen ci juddu. ba ma fa tëddee defe naa yàlla moo tax ma tëdd fa waaye gënuma leen ci dara mais nag ndax foo xamul moom boo fa duggee day métti te foofu du wàllu gor may ñaan nag ñi fa nekk yàlla na fa yàlla génnee. mais nan nga doon dundee foofu des fois du ñàkk nit ko bas la nga. <laughs> non mais xam nga parfois nag ko bas amu ca ndax policiers yi nag ñoom ñoo fekk bi ñu demee ba xam ne zalm bi dañu koo jàpp te deful dara mu jigi dañu ñëw ambiance ak man kaf ak man bu ma nit indi lee lekk sax bu nu ma ko jox au sama tur maam Ndiaye Savon lañ may yàlla xam na ko mais dem nañ ba xam ne zaal mi du genre boobu. Mhm. mais lu waroon na am la rek. ñaata temps nga fa def. am na fa sept jours. sept jours d' ci naka nga xamee ni dañ lay bàyyi. non man moom bi ma fa duggee aw ma fa deux jours xam naa dañ may bàyyi ndax ku deful yàlla gëmmut na la wut te du jaawale. Mhm. te fii ku ci ne sa xol mooy sa wërsëg. Mhm. te man sama xol dafa rafet. loolu moo tax ma xam ne fee ala kulli duñ ma defee rek lu mu yàgg yàgg dañ may bàyyi. xamoon naa d' après loolu ban jàngat nga def ci manifestation yi ak li fi am parce que tamit yaa ngi koy wax da demoon di liggéey wàcc di ñibbi. ñu mhm. jàpp la te sa yoon nekku ci aussi. waaw manifestation moom defe naa baaxut ndax loo xam ne bu amee réew mi yëngu ñëpp tëj seen bitig ñu waroon a liggéey du ñu liggéey loolu moom baaxut loolu nañ ko teg ci suuf ay manifestation wax dëgg fa mhm. baaxut nañ ko teg ci suuf te xam ne du loo xam ne day avancer loo Sénégal day arrière loo Sénégal ndax ni ku da ngay gis ku liggéey atu yàlla mbaa ñaari at ñu daal ji bitigam jël fa la nga xam ne moom la ma ba suñu bitig bi ñu toog dañu ko bëggoon daaj suñu bitig bi ñu bëggoon ko daaj imaginer yooyu mhm. tamit neexul ci mhm. Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xal ñaar mhm. réew mi lu mu lu mu mu métti métti président yi sénégalais lay doon Sénégal président bi du doon guinéen du doon gambien sénégalais lay doon kon nañ ko rafetal rek moo gën ndax la kenn mënu ko xar ñaar am na solo mu nekkoon Zal Mbaye moom laa dalaloon fii ci people 221 siq ak moom waxtaan mu doon defam damit euh, kenn yéenewu ko. ndeysaan waaye nit ñu dañ doon dem ci live yi. Mhm. ndeysaan mu nekk nitu jàmm koo xam ne bu waxee ñëpp bëgg. ndeysaan euh, donc ñu am ci dalaloon na fii. Mhm. tey ban message ngay lancé ak sa kàddu gu mujj. Mhm. message bi may lancé nag moom lu dul santaar rek gërëmaat di gërëm maam Ndiaye Savon di ko sant di sant boroom këram gii nga xam ne nag moo ko jàppale ndax nag boroom këram gii nag tey jii mooy kilifaam. ndax nag maam munoon na bëgg lenn te borom kër gi du ko ko bëggalee boobaa du am du mhm. fa yàlla ma koy sant ama ko du mu baax mi nga xam ne moom dox ndànk wax ndànk mhm. bu wax ji baree du moom waaye bu jëf ji moom la du wax sax nag kenn mhm. xamewu ko ay wax du fa yàlla di yi di xam ne ñoom laa nekkal ñoom fuu ñoom baam bi kumba ji fuu sama xarit fuu sama xarit bi nga xam ne moom it noonu la sonne woon sama yëf waaw ñoom kumba ji ñëpp sonn ci ñoom ñoom Bambi ñëpp a ci sonn. bilaay wallaay di sant sénégalais di sant Mansour Balde di sant Fallou Thiam sama xarit bi nga xam ne maa ngi moom six ans lu ñu ànd. ànd ñu ànd calendrier sama xarit boobu yàlla na sa jàmm yàgg Fallou Babel. kontaan naa bu baax a baax. am na solo mu ngi noonu ah. li ma waxoon ci commencement wa rek di santaat euh, euh, maam. Mhm. di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm. amiin ndax wax dëgg yàlla sànq. Mhm. dama jógee kër Ama Balde. Mhm. ma ñëw ba euh, coté station Talib Mag. Mhm. ma gis benn ceeg ceeg di dawal. ndeysaan sol la ko su maam Ndiaye dëgg la ndeysaan dama ko sinap sax mu ngi sama téléphone. Mhm. ma sinap ko ni xoolal maam ndeysaan mu ngi liggéey. dëgg la ndaw ñi ku nekk jaa ngi jaaxle.